central équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine si seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju ma ne di nga fa am termus yu mucc ayib série de bool inox muna wala bool wi aji jaara plat inox yu dëgër glacière yu baax yii te am garantie tànnal si karaaf ngoonal yii ma ne verre à eau ak verre à boisson yii daal ak baraada yii ma ne fii am na ay paan yu jongama soobaan na ak lave-main bernde te des na jamono yi nga xam ni fagaru dafa gën a am solo central équipement indi na ndimbal bu baax lu si mel ni emballage alu barquette ay gants ak tasse à jeter en papier central équipement di la jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi moo leen jagleel accessoire de décoration yi drap de lit sax desul ginnaaw boo bëggee ñëw central équipement toppal tegtal yii. bu dee oto nga yor. jaaree buntu pikin dangay ngay topp déviation bi ba ci station Ciel Oil boo jéggee barrage bi romb Sivop première mbedd bu dee nag da ngay dox wëral rond-point EDK koñ bu njëkk bi à droite central équipement ibbil ay buntam du lundi waali wasabi di nuyu waat di nuyu ñoom saxir bi mboolem ñi lay jàppale ci tool ak mboolem ñi lay jàppale ci tool ak ñi ci liggéey bi yëpp. nee na nag nga rafet njort bu baax. ndax nee na ki fi mujj ci doomi Serigne Touba yi. di Serigne Saliou. liggéeyal nga ko. ba làq ngërëm. ba bi mu fiy jógee. nee na mi ngi fàttaliku bés Serigne Saliou di ko wax. ndax foofa de la ma ko dégg. ni ko foofa de la ma ko dégg. bu fekkoon mën naa ab dem ba léegi. bu naa wan ab dem ba léegi. kon faaw ma dem seet. faaw ma dem seet tool boobu. ndax nañ ko wax ni tool bi demee. nee na kooku ëmb ak cofeel la. waaye nee na yàlla boole la ak Serigne Saliou. nee na mas na koo wax ni ko. sëñ Saliou daal ba ma ko xamee ba nëgë ni sama diine ak sama lépp dafa yokk loolu nag yàllaa ko dogal nee na kóllëre googee koy sàmm ci njabootam nee na mi ngi koy sàmm ci njabootam gépp nee na rawatina Serigne Cheikh Madi Khalifa ak Serigne Moustapha nee na Serigne Moustapha jógee na Touba gi ñëw bu Pout seet si la yan yendu ko te loolu xam nga ni ñi mu koy defal bëri nee na loolu sa jikko rek la ko may ñi nga seqal àdduna bi itam tàmbalee ci Abdou Diouf Ablaye Wade ba ci ma Sall bi nee na kenn ku ci nekk am nga cër bu mu la sédd. ñii xëccoog ñoom itam. nee na ñii xëccoog ñoom itam. bokk ci kujje yi. bokk ci kujje yi. boo fa nee na boo nee jeng rek ci moom kenn fekk la. nee na kon daal yow loo def rek réew mi tax def. nee na yàlla na la yàlla aar. sàmm la. gën laa dëgëral. ba gën a mottali sa yéene ak sa taxawaay. ci barke suñu tool. Ablaye Diop nee na boo waxee daal. président nee na boo waxee moom day muuma. nee na daa jàng si. yoon te yoon wi nee saa yu fi ñëwee bu fi jógee nee na fii daal te fii rek lay jaar nee na yow nag nee na saa yu la gisee na bu demee nee na mu toog nee na xoolaat yow li nga ko conseil yi nga ko jox nee na mu ne jàng daal nag te weesu nee daal bi sa ginnaaw. nee na vraiment daal ñu ngi si ginnaaw ngi si ginnaaw nee na nga continuer di ko ñaanal di ñaanal réew mi nee na jërëjëf nee mi ngi lay dénk banque bi ci Touba amin amin nu ngi ñaan amin amin amin amin expliquer succès wu Jolof Chicken Jolof Chicken fii ci Ndakaaru Jolof Chicken ci réew mi yëpp Touba yéen ko doon laaj ñii doon jël oto luwe wekk mu ñëw ba Ndakaaru jënd Jolof Chicken di delluwaat ba Touba loolu jeex na tey ndaxte Jolof Chicken am na ca Touba. Eh, yaakaar naa station ADK yi ngi ci dëkk bi waaye tey mu yokk ci lii eh, lii nag eh, njariñ la lu am solo yoo xam ne. da koo am ci ab dëkk muy investissement. ku mel ni kii réew mu ko am da nga koo war a jàpp. ndax gannaaw créé wutal ndaw ñi liggéey. ñoom la war moom mu jóg taxaw di wutal ndaw ñi liggéey. boo xoolee fii ci sama gannaaw. ñi fi ne ñëpp ñii ci ëpp ci dëkk bi lañ leen jële bi ci ci lii koñ bi nu wër bi mu fi duggeek ak léegi yi ñu doon ñëw di ko jéem a créé fii moom créé na Touba lu tax ñu ñëw fi Deka dafa am lu bees lu ñu naan jolof ci kën comme nañ ko defee feneen ak feneen lañu ko lañu ñëwee biir Touba def ko fi te muy lu jaadu nag lool dañoo bëgg doomu dëkk bi di liggéey te lu mel nii jolof ci kën bu amee ci gox dafa am emploi yoo xam moom lay créé ñun suñu politique sociale mooy dem ci gox defa lu mel nii ba pare jël doomu dëkk ba ñuy liggéey kon loolu mooy li nga xam ni moom la EDK mébét. waaw ñu si ëpp nag ndaw dëkk bi lañ mais jël nañ leen fii bien avant ñuy ibbi ñu yóbbu leen Dakar fii lañ leen jëlee yóbbu leen Dakar ñu former leen foofu former leen tàggat leen si liggéey bi ni muy doxee ak ni ñu bëgg liggéey bi doxee former leen si jox leen xam-xam bi war a mën a tax ñu mën a yor liggéey bi tey bi ñuy ibbi. ñu delloo si waat leen fii ci biir Touba. janoo ak marché xayra ci wetu ba ak la poste Jolof Chicken une fierté bien sénégalaise Jolof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livré